jërëjëf merci beaucoup internetu DS Prod Media gannaaw ba ñu leen nuyoo comme ni ñu ko baaxoo di defee saa su ne euh, tey nag ñoo ngi fii ci yëmbal cité Asegna ñëw nag si benn xew-xew boo xam ne xew-xew bu xaw a naqari la euh, seet si ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa famille Gaye euh, ci nettoyage ci lijjanti seen mbiri kër ñu daal di découvrir ñaari liir yoo xamante ne dañ leen a sànni ci biir foos ba ñu commencé décomposé wu Euh, gannaaw noonu nag damay nuyu ki nga xamante ni moom la ñu fekk si kër gi muy soxna si ma bàyyi ko mu nuyoog internet yi naa la soxna si. maa ngi lay fay maa ngi lay fay bu baax di fay ñëpp di nuyu ñëpp di nuyu partout dans le monde di kontaan ci yéen bu baax a baax a baax macha allah. Euh, comme ni ñu ko waxee rek ci commencement bi euh, ndax mën nga ñoo expliquer un naka la fee yi demee. affaire samedi samedi daal la commencé boo sangoo. affaire yi defar retour ci sangukaay bi ci du euh, salle de bain ci sangukaay bi mais pas tellement léegi démb ci dimanche bi bin añee ba pare ay 4 heures ma dem fee yëmbal doon seeti sama benn goro bu xaw a tawat ci la gisoon dëkkandoo bi woowee sama borom kër bi ni ko sa salle de ndax mu ngi def ni sama salle de def day def dafa def tour bu baax ba commencé génn sama borom kër bi defoon na ko démb mais bariwul mu ne ko actuellement def naa ko lu def euh, génn na carrément bu baree bare mu ko waa baax mu ñëw. bi ñibbisee ñu ubbi buntu néeg bi ma dem ci salle bain bi ndox mi ball ba génn di wàcc ci néeg bi ci bagage yooyu moquette pousse ma dindi ko nettoyé ko bi ba pare ñu jëm koo fàtt tëj bunt bi nelaw ba ci suba gi fekk gi euh, samedi bi dama toog fi bas yàgg xeet di xeeñ ma sëpp fii ki ci suuf daal koy woo diw diw mu ne ma ma ne ko lii xeeñ ci kër gi moom xeeñ na di mu ne ma lii xeeñ ci kër gi de fii la gën a xeeñee ci suuf ma ne ko ah xeeñ na ma ne ko man te sama fii sama douche nettoyé jànq bi nettoyé na ko moom set wecc te kenn nekk te xale yi sangu nañ ba toog nii mu ne ma fii de gën a xeeñee ma dañoo tëdd euh, bi mu defee noonu ba fees ba génn tey suba ma wàcc euh, sama borom kër gi woo benn mu ñëw di ko defar bi ma ko fëgee lu bari ndekete booba dafa tëddaat jàppante nelaw après premier bi daal dem bi na ko woowaat bi mu ñëwee ma ne ko xaaral ma woo sama borom kër comme dafa xëy mu waat premier bi mu ñëw ñu di ko woo muy sonné di sonné par la suite bu ma ñëwaatee ni ko ñu ngi koy woo muy sone mu ne ki fi ñëwoon démb ñëw na ma ne ko ndax yaaka woo mun ma noo woowu ma ko mais ñëw na mu ngi xool bi muy xool ma wàcc ma wàccee fekk ko tamit mu yor këyitam daal di calcul bagage yi ci war a dem yëpp daal di yéeg bi ma ñëwee ma ne ko kom kon ndox maa ngi siib sa néeg bi jëm ci salal ba nga génne ko ba mu génne coiffeuse am ñun moom affaire baa ngi génn te bu ñuy sotti waatee ñoom bul utiliser seen chaise ak yëpp suñu kab euh, fi ñuy sangool affaire bi di génne di fël ma yéeg déclaré leen ko bi ma yéegee ci kaw ma dugg première chambre bi bi ma ko waxee mu ne ma amul problème du ma ko utiliser tant que pare woo leen ma dugg ci benn chambre salle bi opposé woo tamit ma ko moom mu ne ma du ma ko utiliser tant que pare leen waaye boo leen paree wax leen ñu ma ne ko waa baax na mu problème ma wàcc wax ko bi ma ko waxee mu tëdd fii ba ci ngoon gi plombier bi daal di ñëw di defar mi defar ba mu pare euh, ci la yebal daa mel ni xale bi pour mu ñëw ci néeg bële pour mu xool ba xam mu ngi dem. bi mu ñëwee wax ko ndaw si ni ko mu ngi dem après ci la ma fekk fii ni ma ñëwul xool sa salle bee ba xam bi wax na ma ma xool ba xam mu ngi dem te dem na bi ma demee ba dugg ma xool lépp wàcc dem may ma ba sàgg ma ne ko xaar ma wàcc léegi su ma wàccee moom li nga xam ne moo nekk ci fosse bi ñu génne ko ma ci kaw ñëpp ñu xool li nekk ci fosse bi ñu jéem koo éviter parce que dafa dëkk suuf dafa tout le temps bu fattee ci moom lay gën a metti fa lañ koy yàqaatee defaraat ko mu ma waa baax na bi wàccee ma fekk suuf ma fekk saala ma ne ko waa premier bi moom li fattoon fii anamu pour ñu woote wane ko mu ne ma nee na ay mbaq la fi génne ma ne ko mbaq mu ne ma man de lekkuma mbaq ak fu mbàq jóge ma ne ko mbaq kan moo dëkk ci kër dugg ci salle de togg bay jël di ko sotti ci chaise muy wàcc ma ne ko loolu yéem na de mu ne ma ma ne ko ana premier mu ne ma mu ngi ci kaw ma toog ci suuf xaar ko ba mu wàcc mu wàccee avant muy wàcc ma dem ni ko fa ndox mi xel leen ndekete boobu mu ngi salle de bain bi di sotti ndox pour affaire bi gën a wàcc mu set bi ma demee ma kii ko taux bi kii bi régal bi fi nga xam ne lépp fa lay wàccee kiiwul xóotul pas tellement nii boo ko sëggee maanaam boog diggante bi la yem rek pour nga tiim ko nii bi ma ñëwee ma sëgg ma xool ma dawal sama bët tuuti seen lu xaw a tëdd noonu ki suuf si ma woo ko ni ko diwkaay ki suuf mu ñëw ma ne ko waa lee lan la mënu ma lee ci lan ma ne ko leenee ne lan la mënu ma lee du dara dangaa ñaaw ñu ko tere li nga foog daal di ci daay dem comme jàppee wuñ ko dara daal après ñu génn dem ñu génnee dem ma taxaw tamit xaar plombier bi ba mu ñëw ma ne loo génne fii mënu ma ay mbàq laa fi génne ma ne ko loolu yéeme na de ay mbàq nga fi génne waaye man ma ne foofu nga toog boo dawalee sa bët nii dama cee gis loo xam ne daal sama yaram ñemewu ko mënuma lan la ma ne ko côté bi mënuma côté bal la ma ne ko côté bi laay mënumaa ñëw di la ko wan ndax sama yaram daal ñemewu ko mënuma xaaral ma xool daal di jël benn bant bu def puno bëgg ko cee dugal kii suuf ne ko lii de sama doom ji laa bi moom la ñuy dawalee di ko foote cee doy ba sonn ba ma ko kiiwee defee di ma fay après ci la ko tegee taal torsom bëgg a xool ñu woo ko téléphone teegul tors baa ngi tàkk muy wax téléphone bi mu paree ci la jël tëñaak bi ne ma fa la nekkee ma ne ko côté bii moom sax nee na ma du dara parce que yaa xam naa ne yaakaar woon du ne ko xoolal rek daal sama ñaram ñemewu ko waaye mënu ma koo tiimaat ci la jàppee daal yëkkati muy muy liir mu jàpp waaw ci la jàpp jël tañaak bi jàpp ko képp ko yëkkati ko muy liir mu sànni ko daal ne des na beneen ci suuf. mu génne liir entier. entier liir entier daal ne mu daal di sànni daay daw moom it. daani daani des na beneen ci biir ñu gaaw génn kër gi ma daaw daal di yuuxu ma yëg ci kaw yuux ñii ci kaw wàcc mer bi ci kaw lan la ma ne ay liir ci foos ba ay liir daal di daw utali police ba bi ma demee ci police bi tamit wax dëgg yàlla commandant bu bees bi resevoir ma muy commandant police yëmbal eseg naa bi parce que bi ma demee ci bureau la ma dugal bi ma laajee ma wax seen bi mu demee yëpp moom commandant bi ci boppam moo taal boppam otoom ñëw bu fii def ci li ci war yëpp woo sapeur parce que diggante bi ñu ko woowee ak bi mu ñëwee daanaka deful 15 minutes wax dëgg yàlla mu taxawu ci loolu commanda yëmbal bu bees bi moom moo yebalewul kenn moom moo ñëwul boppam bi mu wootee sàppoor même pas 15 minutes sàppoor ñëw na ñi nga xam ne ñoo war a def action bi yëpp crime bi yëpp ñi nga xam ne ñoo war a liggéenti bagage yëpp ñëpp teew nañ fi wax dëgg yàlla te fi la taxaw ba jël koor yi ba yóbbu ko pare commanda bi doo ko dem mu def ci liggéey bu mucc ayib liggéey bu yenn maanaa waaye daal mbir mi métti na trop métti na trop man moom à part ça bi ma nekku lii sama xel dalu ci lii daal ni mel neexuma ci laa ko gëj a tiimee parce que sama yaram moo bëggul yooyu ci laa ko gëj a tiimee am na tamit ñu ko gisaat parce que bi mu nee na bi muy dugal kii bi di ko daal ci la benn bi xaw a waa décomposé wu xaw a mel neneen ni waaye benn bi daal jëmm ji lépp a ngi ci daal jëmm ji ñëpp a mu nekk ñaar waaye man daal bi mu ko tiimee ci kii bi di ko wax ne ko lee sama xel dalu ko daal ci laa gëj a gis affaire yi mu ngi ko téléphoné waaye ba tey xoolaatuma ko mais mën nañu jàpp ni ñaar yi ñu gis liir yi mën nañ ko jàppee seex wala dañu magal ay seex ñaari liir yi ñu génne moom ay seex la ay seex te parce que benn bi ta yàquwul tasul deful dara yàquwul tasul deful dara wax dëgg yàlla. d'après ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñëwoon di ko defar jàpp nañ ne lu yàgg la fi wala yàggu fi. ah loolu moom ba ñëwee moom ñëw nañ ba def analyse de mais waxuñu dara waxuñu dara waaye daal ah force daal ma yaakaar bu lu ci dugg. yaakaar naa bu ci yàggee surtout façon liir yu mel noonu gëm naa ni néew ma du yàqu tamit waaye dina déformé wu ba kii waaye lee moom boo ko tiimee di nga xam ne carrément lii nit la doom la benn bi moom benn bi daal la nit ñi xaw a moo xaw a kii tuuti parce que lim li nga ko doon def pour génn ko waaye benn bi moom macha allah liir la moom wax dëgg yàlla mu metti trop metti na trop trop wax dëgg yàlla lu que lii danga ko daan gis ci télé yeeg rajo yi ngay dute di xel ñaar mais tey bi ñu ko tegee suñu bët daal am na lu ñu metti trop wax dëgg yàlla lu ñu metti trop trop. ñaata temps nga dëkk ci kër man kër gi def naa fi 5 ans ki ci suuf daanaka def na fi 8 ans euh, bi ci kaw moo nekk bees moom bi ci kaw bâtiment bi ci kaw moom bâtiment kii la bâtiment bu bees la parce que avant su ma juumul avant koor gi bu fi am daal ay 6 mois daal la fi am. waaw bi ci kaw waaye bi bu dee bii def nañ fi 5 ans su ma juumul kii tamit fi la nga fekk kii suuf fi la nga fekk yàgg na fi trop wax dëgg yàlla. mës ngeen a nemmeeku yu mel nii ci kër gi ay foos yu fatt ak yu demee noonu. non ñun foos bu mësaan a fatt suñ ko débouché ba pare ki ko débouché day génne leen ci fi teg day génne même bu ñuy ngàcc foos sama borom kër bi du liggéey day bàyyi ba oto bi ngàcc ba pare mu vidé li ci nekk pour mu xool ba xam set na wala setul dañoo tam bu ñuy ngàcc suñu ngàccee bu dee njàmpe la wala mu nekk brosse dinañ woote kat ni nanga ma ci génne pour ñu koy mën a éviter ñun noonu vie boobu maa ngi moom naturellement vie boobu la ñuy vie puisard bu feesee. su nee ma day wàcc fii du ma fa sotti damay mujj obligé euh, utiliser sama douze cabinet ban defar ko maak moom yàlla def nañu déggoo ci loolu waaye bu mësaana nga ci foos moom lu ci nekk moom dina woote ni ah diw kaay leen bu ñëwee ñu ni doon nga dindi débousé foos bi waaye lii lañ ci fekk ak lii ak lii ak lii par pour ku nekk bàyyi ko xel loolu la waral nag bi ma kii waxee ma ne xaar ma wàcc laaj ko la moo ci nekk comme que yéegoon naa ba def déclaration su waxee la moo ci nekk bu fekkee jaaduwul ma war leen man mi leen waxoon bu leen kii bu ma leen woowee xool kenn ku ne jéem a maytu parce que tey jii lu fi fatt rek ci suuf la ñuy dajji defar ko chaque jour chaque jour chaque jour muy siit te loo xam ne dafa metti waaye tey daal li ñu dal metti na trop neexul ci xool wax dëgg yàlla metti na ku yor ëmb kuy ëmb di wasin bi nga xam ne metti na ay seex yuy tooy xit nga mën leen a dugal ci foos ñuy déposer ba gis ko metti na trop metti na trop wax dëgg yàlla. aussi euh, kër gi remarqué woo leen kenn koo xamante ne rek ëmboon na fi ngeen xëy gisatoo leen kook ëmb. loolay problème bi la nag kër gi mënoo fee remarqué kenn koo xam ne mën a parce que fii ku ne sa appartement ngay toog suuf la moo ko këram moo ay doomam ñoo fa nekk man damay restaurant laa yor sama place ngi nii ubbeegu ma restaurant laa yor su ma xëyee sept laay dem marché bu ñu ba ngoon deux heures ou trois heures fi dugg si kon kooku xam nga li xam bariwul kenn ku ne sa appartement ngay toog ñaar ñi ñoo fi def biir bi ak seen rakk ji ma feral keroog ñun doo nga fi nekk keneen raxuñu keneen kiiwuñu ko beneen femme bi fi dugg léegi moom it marié la jëkkëram dafa dafa dem dafa gontu démb ñun doo nga fi nekk fii kenn ku ne sa kër ngay toog kenn duggul kër kenn wax dëgg yàlla kenn duggul kër kenn kenn ku ne sa appartement ngay toog xanaa ngeen daggee ci escalier bi nuyoo jàmm sant dem waaye à part amul dugg fii naan attaaya wala ñiy def groupe bi ñuy def fi amul loolu kenn ku ne dangaa téye sa bopp. am ngeen complicité déggoo bi affaire yi génnee bi affaire yi génnee def ngeen jotaay waxtaan. kenn ku ci nekk wax ni këram kenn ëmb fi woon. non loolu defuñ ko taay waxtaan parce que police dafay nekkoon police moo ñëwoon doon def enquête am ñoo ñëw fii def enquête bi non non gisante waatuñu xanaa bi ñu yuuxoo wàcc parce que man bi may kii yuuxoo wàcc boobu bareegul nit ci laa daw police yëmbal dem def déclaration bi ma ñëwee nag laa fekk fii fees dell koñ bi fees dell waaye woote wuñu waxtaan pour xool parce que wax dëgg yàlla moom bàyyiwuma xel kenn ko ëmb wax dëgg yàlla bàyyiwuma xel kenn ko ëmb. parce que booy xëy sa kër 7 heures dem maas soo ñëwee ngeen doo togg wàcc 2 heures wala 3 heures mën naa sax bu may yaay sax mën naa jeexal 9 heures 10 heures mais ambiance bi nga tali moo ma fay bàyyi ba heure boobu ma ñibbisi kon am na yu bari yoo xam ne doo ko xam doo ko soupçonné wax dëgg yàlla man bàyyiwuma xel kenn koo xam ne wax dëgg yàlla am na moom. police aussi waxu leen am na benn suspect. non police moom waxuñu benn suspect waaw en tout cas daal ñëw na def enquête jël numéro nañ leen déglu dinañu woowaat ay wax dëgg yàlla métti na moom métti na ba ca kanamu yàlla dindi sa foos di ko defar c'est la première fois nga dindi sa foos di ko defar da nga dindi foos di ko defar fekk ci ay kuddu fekk ci ay mbuus ay yëfi góor yooyu nga fekk ci ay euh, paaka ay kuddu ay njàmpe danga daan fekk boo ko ci fekkee nga dindi wan woon borom kër gi déclaré daal nan maytu ndàngam mais tey jii moom lañ ci fekk neexul benn yoon neexul neexul benn yoon wax dëgg yàlla. a jaajëf jaajëf jërëjëf kontaan naa ci yéen trop macha allah. kontaan naa ci